وثقت برب الحرب سيس الجود والعفو مع المصطفى وزغت مع المختار بالله من في امتداء محمدا عليه صلاة yi nii topp ci sit bi ñu ngi fii ci Badar ci bis bu tedd bi di bis bu màgg bi di bis bu ñuy màggale yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam na ko mag ñu baax ñi doon defee ba ñëw ci jàmbaar ja di alxaaji sëriñ Gueye raay mu sedd di jàmbaar joo xam ne mu seexul xaddim la mu jëlan léppam euh, soyal ko ci biir seexul xaddim euh, di jàmbaar joo xam ne waxtu woo ko musaa dégg kàddoom lépp mu sëriñ bee waaye boo ko musaa na gis muy demit ci sëriñ bi rek lay dem euh, nàmpatal ci ak njabootam ba tey jii bis bi nga xam ne moom la daan màggal fii ci Badar waxtu wu nekk leen naan liggéeyu yàmbaar waxtu wu ne day gën a wane kanam rawatina nag du jëm Seexul xaddim liggéey Sëñ Tuubaa liggéey Sëñ Tuubaa mu tànki kanam laam waaye mu tànki ginnaaw waaye firnde yi waxtu wu nekk bu ñëwee Badar dañ koy xam tey nag ñu ngi fii nag ci kenn ci njabootam di Cheikh mu Moustapha mi mu tuddee Sëñ Moussa Taw Xaadim Rasul ñu di ko laaj eh, ci solo màggal gi ak eh, sababu màggal gi kon sëriñ bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ni ne bisub yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi ndokkeel taaliba yëpp ren nag ñu tuddee ko kenn ci njabootu sëriñ Touba ndax ni ñu ko waxee bis la boo xam ne njabootu sëriñ Touba ñoo koy taxawu. ñoo koy taxawee kon faw sëriñ bi moom léppam génn dara daraam génnul lislaam daraam génnul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lu nuy def mënta génn nu ñi nga xam ne njabootu sëriñ bi lañ li nuy def mënta génn eh, sëriñ bi mënta génn ak njabootam mooy dugg ci biir njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu tuddee ko sëriñ Ibrahima Mbacke kenn ci njabootu sëriñ bi ngir niñ ko daan defee rek jàngale ci moom ay bind euh, yu mën a jariñ taalibe yi bokk na nag ci li nu bëgg jàngale ci bis bi tey te di ko fàttali réew mépp moo di yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne muñ mooy xaaju diine mag ñi mag ñi nag barab yi ñu nekk yëpp ay mag a fi nekkoon yoo xam ni danoo bàyyi woon seen lépp lislaam jaral leen lu ne amuñu ci mbiru àdduna yi yu baree bari yu nit mën a am mu jafe ci ñoom waaye taxul ñu soppeeku ànd ak pas-pas bu wér ba li ba li nu doon sàkk ba doon sàkku eh, suñ borom defal leen ko loolu ñu doon taxaw it suñ borom def mu taxaw ba nu jot ci tey kon valeur boobu muy muy muñ mel ni dafay xaw a mel ni luy jafe ci jamono bi nu war koo jàngale te njàngale mi gën a jëm ci ndaw ñi ndax population bi ñu yor yi ci ëpp ay ndaw lañ loolu bokk na ci bind yi nga xam ne bëgg nañu ku jóge ci gàmmu gërëm nga yóbbaale muy wala fi dañoo tënk wax ji wax ni ku muñ muñ loolu nag sëriñ bi bëggoon na ko fàttali taalibe yëpp fàttaliku ko dongo fàttaliku fàttali it képp kuy ab sénégalais te sunu kàddu bi egg ci moom mooy dara dara dara ci àdduna xëyul rek sotti mel na mel na mën a mel suñ borom diggante kun fayakun lay defe lu mu mën di doon waaye kun fayakun li baat bii di jege jege tëriwul lu mu ci man di doon dafa mel ni dina am waxtu wala temps bu mu war a jël ngir sotti man a sottal mën a am Serigne Touba li ko suñ borom defal li muy rëy rëy yoonu géej gi jaar na fi yoonu Mauritanie jaar na fi. yeneen yu bari jaar na fi njaareem jaar na fi ba mbay yi doogay sotti kon nag nu xam ni eh, kenn ku nekk la ngay sàkku li am solo ci sëg dund mooy nga fexe ba tegu ci aw yoon te ñaan suñu borom mu saxal la ci mm, te it nag nangu muñ coono yi nga xam ni moo ànd ak loolu xaarit nangoo xaarit ndax suñu borom du digge mukk lum dul def Euh, kon te digg na it ni moom mook ñi muñ ñooy ànd kon bind boobu bokk na ci bind yi nga xamante ni bëgg nañ ko bëggoon nañ ko bokk ak taalibe yi bëggoon nañ ko bokk ak réew mi Sëñ ku bëgg mbokk la ku mën a nimmiku mbokk la ku mën a taxaw mbokk la ku xeebul menn mbokk la Sëñ Amet boo dee mbokk su sa xel gàttee sax boo ñëwee ci moom danga naa dama am ci moom parparloo ndax man la gën a bëgg ndax fi mu lay teg ak nim lay def ci jëm yàlla képp tax aku bokk di jàmbaar joo xam ne lu suñ borom sédd ànd na ko ak bokkam dama koy wax ni ko yow doo tiitar say bokk say bokk dañ lay tiitaroo ngir loo am bokk ko say bokk ci sëñame laaj nit koo xam ne waxtu wu nekk mu ngi xeeñtu mbokkam ci lum ne ba mën caa def xalaatam wala mu def ci alalam te jëmm yàlla képp tax ndax lu muy def sax bëgg ko koo xam ba tax na lu muy def du bëgg sax ku ko gis loolu mooy def te yàlla tax yàlla nag moo ni jokk leen bokk gi ma jokk leen sàmm leen ku ma sàmm leen waaye ku ko dogit ma dog la kon li yàlla diggee ci képp ku jokk mbokk cinq mètres yàlla na ko am ak sa bokk yëpp naa xam ni sa xol yi eh, yëpp seet nañ ci yow waaye xol yi taalibe nañ ci ndax eh, nii nga def dafa fàttali lu bari dafa fàttali diggante Sëriñ Mataar ak maam Mayib waaye dafa fàttali diggante sëñ Moussa ak sëñ Mor Assa ak sëñ Omar mboolem mag ña seen taxawaay ndax géej booy ëgsee matale nga lépp ndax ñii dañ lay sago da leen si sago waaye dañ lay sago tax ko mbokk mbaax sagoo te mbokk nga boo xam ni du ni da baax yam ci waaye dan naa da ngaa gën kon dañ lay ñaan fan gudd ànd wér ba tax tey jii dama leen di wax ni leen alaaj sëñ mi ngi jàkkaarloo yéen ci leen gis waaye bu dee si waatan jamono du am kees ndax lam sumban jëmbatan ko tey bu doon ak garab a ngi ci toog kon day ñaanal leen ñu ñaanal leen ñu ñaanal mboolem jullit ba yéene yëpp àgg bak sëñ Tuubaa ñu ngi jéggalu bu baax na te xam na moom li nga waxal la ci jokk ak bokk jokk ak bokk moom yàllaa ko digle ku ko defit yàlla mën a ciy fay te sawar na bu ñu jugee di ñëw fii ci barab yu mel ni sawar nañ ci loolu ndax li ñu fi fekk ndax li fi fekk rek mooy dundal liñ nga xadd mooy ak bokk ak taalibe ñu fi nekkee ñoom itam li ñu fi nekkee lépp mooy loo baax ak ndigalu Sëriñ Tuubaa gannaaw ci ngeen yéen itam ci ngeen jokk loolu loolu mooy tax barab bi daan ñu sawar ñëw fii bi fi ñëw nag ñu ànd ak suñu bokk yi Sëriñ Seexuna mi satu sëñ Maraxsa moo sëriñ bi ñu bokk lépp sëñ Abdoulaye Cissé mi moom it du sunu mbokk du du sampoon barab bi nekk woon fii di fi jàngale alxuraan ba tax na turam ci barab bi ñëpp xam nañu ndax bara nañu fi ñu ñu fi jàngale watul alxuraan te loolu mooy cosaanul dëkk bi mooy jàng alxuraan ak jàngale ko ak liggéey loolu nag ñu ngi ciy sant ba day sunu mag ji nga xam ne loolu lépp moo ko moo moo moo moo ko jëloo du ko dundal ba indil ko fi muy alaaji Sëriñ Gueye moom amuñu payam ah ndax buñ fi del di barab bi ak di fi xañtu mën nañoo xam ne yàlla yàlla ak moom la dañoo wax nag ku dul sant nit doo sant yàlla faaw da ngay sant ngay jàll jàllal ci ndiir kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ñaan fa mu nekk suñ boroom gàttandu ko ci yërmaaneem ji lam doon liggéey ngeen Sëriñ Tuubaa it suñu boroom fayee ko fa bàyyil ko fi njaboot gi loolu nag am nañ ci yaakaar ndax képp koo xam ne ci lu baax nga nekk ba di fi jógee yi ngay xalaate yépp suñu borom dala ciy tontu bi ci njëkk mooy miti tuddee suñu borom fegal na la wax ne dina la ko fegal nga xalaat fa nga jëm mu xamal ne la àjjana nga jëm nga xalaat sa njaboot mu wondeel ne sa njaboot maa la fi wutu ndax yàlla rek moo fi des ku fi ñëw tey nag da xam ne yàlla wuutu na fi ak ba yaakaar naa lam jógoon ci jot ko bonom man suñu borom àggal na ko ginnaaw loolu mooy tax ñu rafet njot ci la leneen la des <laughs> waaw moom mu doon noonu nit ku daan saguwaay bokkam di nit ku baax nag koo xam ne ku xamoon boppam la te am fulla ci ci lu baax loolu wax dëgg yàlla ñi bokk ci askan wi ñëpp seere nañ ko kon nag ñaan yàlla képp moo ci des li leen yàlla bàyyee nga xam ne moom lañ leen bàyyee su ngeen ci saxee di wéy day day day gën a yokk te du jëm ginnaaw mukk ba dina tukki ndax Sëriñ Tuubaa amul lenn lu muy samp mu des ginnaaw foo fekk jeexit sëñ bi rek nanga xam ba xam moo ko def wala defu ko ndax jëm kanam nga mooy xamal ne ab te baram bi sëñ bee ko moo ko sanc ñi fi nekkoon ñëpp sëñ bi lañ fi nekkaloon kon nag loola moom yal na ko yàlla jëmi kanam te jàpp nañ ne itam day jëm kanam ndax yéen ngi topp ci loola. te ñi gëm yàlla te topp ci li leen seen waajur daan def su borom dañ leen yéegal ci ñoo ñooña do lañ mënut ñu motali leen ko kon nag li des mooy ñaan rek suñu suñu sëriñ sëriñ bi ñu fekkit muy setub sëñ Mursalaa di doomi sëñ Bas ñu ngi koy siyaare wax dëgg yàlla xam nañu waajuram moom bu wax xañ ne ndaje bi ak bi moom xamee bi loolu tey la ko yàlla dogal waaye ñu ngi koy siyaare ñu ko jox wàccuwaayam yëpp sëñ bi nag diggam sëñ bi <laughs> Ah, waajur mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci daara yi ah, alxuraan yi ndax mu ngi ay jàngalekat lañ lépp luñ ci def rek dañ ko yëg ah, waaye waajuram mi ngi liggéeyal Sëñ Tuubaa ci daara yi di leen taxaw te loolu lépp xëy na warteef la boo xam ne yàlla moo ko jagloo yàlla na ko fi yàlla yàggal mooy it yéen <laughs> sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant seexul xadim Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Mustafa di jotal sunu siyaar ci ku tedd ki di ko jaarale ci Cheikh Mustafa mi mu Cheikh Abdul Ahad mu Xaadimu Rasuul waaye di ko ñaanal fan bu gudd ànd ku wér ba yéene ji mu yéene liggéeyal maam ju baax ja ak mboolem njaboot seexul xadim gépp sama borom dëbb la kàttan bu nga jëf ci lu gën a kawe sa njort ci barke Cheikhul Khadim da am mbégte moo xam ni sunu xol lañ koy tibbee waxtu wu nekk ñoom mboolem ñi sëtoo ci dëkk bi di Badar ñu wettali goonu wettali lépp nag ñu di ko jaarale ci jëmmub sëriñ Ahmed mii nga xam ni mooy seen waajur te mati ko sëkk ma doon di léegi ay kàddu ci moom muy kàddu cant gu ko njaboot gépp di sant eh, di ko ñaanal fanu gudd ndax taxawaay bu rafet bu mu taxaw askanu ngeen yëpp ak saytu gum leen di saytu ak nemmeeku boo xam ne waxtu wu nekk mu ngi koy nemmeeku njaboot di jëmm joo xam ni mboolem njaboot gi kenn ku ci nekk ameel na ko jaajëf kon loolu Mbàkke ñu ngi la koy seere waaye ñoom ñëpp nag ñu ànd ak moom di la sant ci lii nga leen defar muy lu rëy ndax bërëb bi maam yi da ko sante woon ragal yàlla ak bëgg lu baax waaye sa waajur yu tedd ya tàmbalee ko ci moom Cheikh mu Moustapha ba ci mboolem njaboot Sëñ Tuubaa gi sama baay nee na ma ñaar la ci xam ñu taxawu ci dëkk bi ci njaboot Sëñ gi lal bii ci biir mooy lal bi nga xam ni moom la ñu fi daan tegal Cheikh Moustapha mu daan ci toog teen bii sëñ Moussa kon tëdd ci kaalaam Cheikh Mamadou Fadal moo ci ñaan ñu ubbi ko sama baay nett li na ni ma ñeenti doomi sëñ Tuubaa fanaan nañ fi génn guddi ndax Cheikh Mahamadul Bachir dafa doon nimmeeku sëñ Moussa ñun ko mi ngi Kajoor mu ni naa ko dàkki Badar wax na ni sa waajuru tedd wa kerut muy Cheikh Abdoul Ahad ñëw na fi wax na ni ma keroog sëñ Abdoulahi ñëw na fi sëñ mu Moustapha ñëw fi waaw bi mu xëyee la daal di yónnee ni ne sëñ Morassa ak moo jógee fa laa jëm si bi mu ëgsee ñun ka njaboot sëñ gu tedd wi kat a ngi fi kon daal bërëb la boo xam ne taxaat borom sanc ko waxtu wu nekk mi ngi gën a wane wu waaye balday sa taaral nga lépp kon bàkki ñu ngi ñaan yal na yàlla guddal sa fan dolli man ngee xew di ba yéene yëpp àgg bàkki borom Tuubaa ñu sant bu alhamdulilah. alhamdulilah. yàlla dafa dogaloon mu am ci ñun cofeel lool waxtu mu ne mu ne leen ko hmm. loolu nag mooy dox ba ak si ba ak si fii rek waaw bu ma yëgee lu yëngu ci yéen rek mm. sama xel daal di nekk ci bëgg mm. ngeen ngeen gis ma moo rek moo war a sant noonu daal maa ngi sant leen gërëm rek di ko fedd bu baax loolu rek la ci gàmmu gi sëñ bi jógee Touba ànd ak Baye Fallou Gueye jógee Touba ànd ak Baye Fallou Gueye kero kero kero kero mu nuyu alaaj sëñ bi fii ci ci néeg bi xale si bi ni ne ko sëñ bi Dakar gii fi lañ fare góor yàlla yi waaw ker na loolu loolu loo xam yaakaar naa loolu man ngeen fi gàtt fal góor yàlla waaw parce que man man boobu garaam laa jógee ñëw ci gàmmu gi sëñ bi jógee Touba guddi ànd ak Baye Fallou Gueye waaw loo xam xam loolu yàgg na loolu yàgg na te te waajur mu tedd dafa xam alaaj moom sama sekk ni ko nit di mën na lu nekkul ci moom waaye tànk foo foo gis ñor na borom waaw foo gisee ñor <laughs>